mu jógee Pikine nag su jógee waa Pikine jóg su jógee waa nu mu tuddee sax waa Diourbel jóg ak xojloo ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi Bébé Ballo nuyu naa la. oui Ouzin maa lay maa lay fay euh, di la wax gannaaw sant yàlla jur si yont bi sant suñu ñaar waajur baax Ouzin maa ngi sant bu baax a baax sama yaay ah di ko ñaanal jàmm yàlla may ko gudd fan ak wér ndax dafa sonn ci man trop. di sant sama sama papa xam nga mi ngi nekk ba Dantec moom maa ngi koy ñaanal jàmm yàlla ko yàlla may ko gudd fan ba ñu fekkee ñoom ñu ñaan ñëpp ñuy njariñ xam nga di nuyu bu baax a baax waa pikin mm-hmm. waa Pikine vraiment aw ma seen fay gis naa luñ ma taxawoo ci combat yi ma jóge nii yëpp vraiment di sant tamit waa xojil bu baax a baax waa Jurbel xam nga aw ma seen fay surtout waa waa xojil gis naa ni ñu taxawoo ci combat bi xam nga di sant tamit sama staff ak samay fans club bi nga xamante ni fans club bu bees la xam nga ñu ci mel ni ñoom Mami Ngom xam nga sama doom di ci mel ni ay xam nga ñoom soxna ak ñi fa nekk ñëpp ñoom fóode waa troisième robine première ba troisième robinet maa ngi lañ sant stade bi syndicat ñëpp di nuyu bu baax a baax a baax sama papa Abdou Ndiaye ak ak kii nu mu tudd waay père Mamadou Jean ah di nuyu bu baax a baax a baax waa Buntu Pikine Arafane xam nga gépp maa ngi leen nante yi ñu bëggee bu baax a baax a baax di nuyu aussi tamit waa PC Campenal ñëpp sama supporter yi fa nekk yëpp maa leen bëgg di ñaanal jàmm di bëggee bu baax a baax baax Ousseyn. Mm-hmm, di bëggee bu baax a baax ñu gis la nga nekk xale boo xamante ni nii euh, làmb dale bàyyi xel ndax saa boo bëree gars yi dinañ kontaan mais kañ nga dugg si ci làmb ak ñaata combat nga jot a def. waaw Ousseyn maa ngi dugg ci làmb xam 2017. Euh, am 7 euh, combats 5 victoires 2 défaites. Mhm. sànq sa biir wax maa ngi dégg nga ne euh, maa ngi gërëm waa Fann da ngay liggéey Fann. waaw hôpital Fann aussi waaw maa ngi leen nii nuyu bu baax a baax waaw di nuyu suñu service waa maladie infectieuse waaw di nuyu tamit suñu professeur Moussa Seydi ak docteur Kadia ñu naa ko Xarjata Diallo maa ngi ko ñaana yàlla defal ko jàmm ak major Booley professeur Dayka ah. ak ñoom Fatima borom boulangerie jaune maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw hôpital Fann laa nekk euh, nekk ci service bi di liggéey ak sumay morom ak ñëpp euh, nekk ci malaat yi xam nga ñoo lañu defar rajo affaire yooyu scanner et tout ça xam nga waaw boole métier bi ak waaw liggéey bi quoi. mais du xaw a metti mbër mu ndaw kenn ku xam na ne mbër mu ndaw dafa metti nga bëgg di liggéey bëgg di ñëw entraînement du xaw a metti tuuti. non du metti parce que dangay def de garde quoi. Mhm. tu as repos 72 heures trois jours yooyu nag mën nga ko entraîner. 80 mhm. jours nga dem liggéey parce que météo boo amee combat après ñu am ñu lay gérer xam nga ngay dem di entraîner di ñëw waaw ah, mi ngi noonu quoi météo. <laughs> Mhm. gis ngeen mbokk yi mbër day ànd ak métier ndax bu làmb ji doxul nga mën a dem liggéeyi waaye mbër laa rek su ma xëyee tëdd su ma xëyee toog këram nga tàllal ko loxo bu yàggee sax dañ lay mujjee jéppi mm-hmm. mais ñu gis ne euh, sa combat yi dafay faral di teglantoo. nga def sa 7 combats 5 victoires 2 défaites. ñan nga jot a bëreel. combat yi euh, maa ngi bëreel ak euh, zéro laa njëkk a bëreel mu daan ma euh, ak ma ñëw bëreel caatu Daara Fall yàlla may ma ndam ci kawam ak ñoom caatu Maalo bu Grand Yoff ak Modou Lo Paris ah caat bu Diourbel ak Ran Diop booy Kaasa moo mujjee daan waaw. Euh, ñu gis sa diggante ak Thiatou Daouda Fall ngeen bëre yéen ñaar bëre boo xamante nii da ngeen ko teg ci heure ak ak ndax dafa teg nga teggi roof caxabal mm-hmm. ah bëgg xàtta bi defe naa mu ñëw nga déclenché mbot mun nga ma ñëwaatal ci combat bi tuuti. waaw Thiatou Daouda faal maa ngi koy nuyu au passage vraiment moom it nekk nit ku baax nekk suma xarit bëre nañ mais dara ñaawul. Mm-hmm. xam nga moom it di ko ñaana yàlla defal ko jàmm. ba làmb rek moo ñu boole woon mm-hmm. te ay mbokk xam nga vraiment kon waaw waaw non maanaam moom moom mooy loolu xam nga waaw combat bi ni mu demee mooy dafa ñëw di bërekat man may bërekat xam nga mu ñëw téye boppam man ma ñëw bëre ci kawam ah bi ma bëree ci kawam après ci lañ bëre bëre xam nga bëre moom fu ne lay kiyee quoi après bi ma ko roofee ca waxal noonu mu teggi ko affaire daw bootu après ci la lecture cerce bi rek déclenché quoi waaw déclenché muy champion moom it vraiment mais ñu gis euh, da nga nekk mbëru wet ndax bu ma xoolee sa combat bu mujj bi tamit. noonu la demee. dafa mel ni même bëre bi moom nga andiwaat. waaw combat bu mujj bi xam nga man man cuune ci boppam moom ma sonal mais du bërëkat quoi bërëkat tiitu ma ko. cuune ah, lay sonal cuune rek moo ma sonal moo tax bàyyi naa bëre cuune na naay bëre ndaanaan rek. la moo tax ah. cuune sonal la la moo tax ngay bëgg di bëre ndaanaan. c'est parce que tey li ngay def sa bopp mooy maanaam kii cuune la rek da ngay ñëw rek jeexal combat bi. nga ñëw ay erreur ngay def ay 3 appui 4 appui ñu jox ko victoire affaire yooyu loolu lay doon quoi. mais bu nekkee ndaanaan mu leer na ne kii. Mhm. bëreekat la. Mhm. lan ngay xaar ci moom. waaw bu fekkee ndaanaan la kooku da ngay xam ni kii ndaanaan ngay bëre da ngay respecté combat bi looy def day wóor waaw looloo tax moo tax dama la ñuy mën a tànn ci luy rëy parce que man su ma la paree pareelee rek. non boo ñëwee mooy loolu. doo doy. non maa nga mën a bëre damay kontaan waaw moo waral sama combat bi mu demee noonu. Euh, ñu gis la euh, daanaka mbër nga mais tooguloo Dakar nga ndax dañ lay gis ngay dem Diourbel di bëre di di ñëw Dakar di bëre. Mhm. lu waral loolu bañ a toog la wala. waaw bañ a toog la te tamit li waral sax ngay gën a boole ñaar yooyu c'est parce que pour ngay mën a boole pour ngay mën a yokk say série de victoire yi nga nekk. Mhm. aussi yooyu tamit da ciy am solo. Mhm. waaw ba pare tamit euh, ñu amaat combat nii war a bëre grand combat le 31 décembre foofu ci Diourbel aussi tamit waaw. nga combat yaa kan. Euh, bu ginnaaw raay. bu ginnaaw raay Hercule waaw. muy làmb bu neex Aline Sène Sadia Mane production moo ko tëgg. muy le 31 foofu ci stade Ely Manel Fall. Ah, di ci woo waa xujil ñëpp waa Diourbel waa Dakar bàyyiwuma kenn kenn. waaw ah. mais mu nekk sa premier grand combat est que ni nga waajalee combat bi ak ni nga waajalee combat boobu day am différence wala benn lay nekk. non non bi xam nga compétir neen mhm. jóge nañ ci combat. war a toogaat deux semaines war a bëriwaat kon tey dangay ñëw métier waat rek waaw ñëw fu mu toll li saf nga ba pare. yokku cere doolu ñeex yokku cere ngay def doolu ñeex. waaw ñëw bëre yàlla may la ndam ci kàttan yàlla. lan ngay wax équipe mi nga xamante ni moom nga dajale ak waa Diourbel yi nga ni ñooy toog di xaar Bébé Balla. li ma leen wax mooy ñoom xam nañ nu mu demee. waaw nañ waaj lu ñu waaj doyul parce que stade dañ ko war diw ba mu fees parce que promoteur ñaari combat lay doon quoi man ak promoteur bi après man ak Hercule. parce que promoteur bi neena na day indi moom moo ngom indi nday faatu Adama Jali ah, ambiance cent pour cent la war a indi ma ne ko maak yow du yomb ndax ma ni damay ambiance damay cent pour cent mu ne ma ba bis ba dinaa leen duma naa leen daa ma ne ko doo def dara moom Alioune Sène borom Allemagne waaw ah, mi ngi ah, noonu moom dafa bëgg bëgg ak yéen loolu la bëgg tama duma ko ko may ndax stade bi dinañ ko rëq ba mu mel ni kàcce mbeer barke Serigne Bamba. <laughs> mais fi mu toll nii. Euh, boo jugee foofu combat boobu moom mën naa na ñëw na ba noppi ndax deux semaines na ci des. Mm-hmm. mais soo jugee foofu euh, làmbu Dakar fi mu toll nii ñan nga teg sa bët ak fi mu toll nii ko naaw ci ci victoire moom boo yi kenn bañ. waaw waa instant bi ñu ngi ci kawam bu baax euh, xëy na fi ñu teg suñu bët sax peut-être ñu bañ koo wax parce que ku ñëpp xam foo jëm loo gaaw a àgg. Mm-hmm. mais nag ñi ngi nekk ci voie bi. di dem ku ñu làmb boole rek te ñuy naataangoo rek incha allah dinañ bëre waa. su ma andiloon parisien lay wax. parisien comme moom champion la xeexkat la bu ñu xeexee ma dóor ko mu wàcc wala ma gaañ ko rek. jàpp ko daan parisien parisien ko jàpp fi ki nga xamante ni nii mooy Calcio. Mhm. da ko dóor ba Calcio xamul fan lay taxaw bët yi gisul bët yaa nga suul <laughs> ak coow li bàyyi coow li bàyyi woo ka parisien da ko humilier ci kanamu nga taxaw ne la jox parisien. non parisien nga la dajal rek. te ñun nag du ñu ay bu mag ngaaga la parce que bu nekkoon ngaaga du joxe kanamam noonu ñu koy dóor muy gën a ñëw affaire Elton yooyu. mais est-ce que est parisien la loxo yi gaaw rek dugg ci moom. mu xaw la non non non parisien bu gaaw maa gën a gaaw. Hmm. maa dàq bëri parisien maa ko gën a gaaw. parisien lay xool. parisien naa bëgg combat boobu ba léegi maa lay dégg yaa ngi maa jàll ñëwal ñu bëre am nga combat ba balaa ngi nii ñu ngi noonu. bu la andiloon avance Clémenceau looy wax ah làmb jaa ngi noonu. ale paasal bi Clémenceau mel. njarne a ngi noonu loolay bis bi Clémenceau ndaanaan la bërekat la waaw ah, mais dafa war ñëw ñu bëre. Bébé Balla fi toll nag xel dafa mel ni dafa xaw a daal fi toll ni ku ma la wax nga ne ma ndaanaan la na ñu bëre xaw mel ni sax ku kontaan ci li ma lay wax. Arafas ba muy am benn combat ma am benn combat lañ ko jox suñu sama avance ak moom ba làmb ji bañ jàpp dat ba pare. ba mu defee recherche su Pikine ñu ne ko boo bi dafa mën a bëre la teggi avance bi ndàkk ñu jox ko far bu jar ñu jox ma caaru daaw dafaal ma loolu nag Ada moom Ada moom dàqul mbër bu ndax Ada moom xale la boo xamante nii xàmmewul bëm réew ma waxee Ada Fass nag du ma waat ci affaire yooyu noonu di fenn barki alxuraan karim yow a jàpp ne Ada Fass dala bi nag dafa ma raw ci làmb du ma ci sori quoi mais dama lay ba ñuy débuté man ak moom. mu am benn combat ma am benn combat ba ñu boole man ak moom ñu wàcc ci stade bi. promoteur bi moo ko wooy tribune bi man mu wooy ma fi ñu daje yëngal ci stade bi mu man ak moom ñoo ànd dem ba ci ménagère bi boobu mbay jàll moom yor moom aas moo ko yor ñuy wër aas gisuñu ko. ñuy dox combat bi ba ñu ba combat bi taxaw moom mu daw delloowaat avance bi. billaahi wallaahi taalaay ci boobu nag looloo tax mu bëree ak far bu jar mardi man ma bëree caat daara faal mercredi bi ñu tas ko. boobu moom moo daw waaw te boobu mi nga am benn combat ma am benn combat. billaay walaay. mais mais mais làmb ngi seen kanam. làmb ngi suñu kanam parce que làmb xeer la rek. Mm-hmm. njëkk a sóolu nga njëkk a ñor. Mm-hmm. waaw kon boog man moo tax euh, ku ci jàpp ni raw nga ma rek jàpp ne man maa ngi ci maa ngi ñëw. a jeexagul. <laughs> gis ngeen ku jàpp ne raw nga ma rek jàppal ne maa ngi ñëw xale la boo xamante ne nag hmm. avenir làmb nga ci kanamam dama ni ma koy waxee chaque jour nañ ko bàyyiwaat xel. nañ ko bàyyiwaat xel nañ ko bàyyiwaat xel boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon ñu tàggatoo. waaw kàddu yu mujj yi euh, xam naa lii rek lay doon lu santaat sama yaay bu baax a baax. Mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan ak wér. dafa sonn ci man di ñaanal tamit sama papa mu ngi ba Dantec aussi ah moom it di ko ñaanal gudd fan ak weer vraiment. di nuyu tamit euh, particulièrement waa Pikine vraiment gis naa combat bi nu ñu génnee ñoom ñëpp. vraiment esthétique yi xam nga lépp fekk lépp luy promotion combat bi def nañ ko di leen sant bu baax di nuyu tamit waa waa Jurbel aussi. Mhm. waa Jurbel rawatina waa xojil bi nga xam ne fa laa nekk. tey bu ma ñëwee xojil Ouzin da ngay mel ni Balla Gaye bu fa dugg si la wax dëgg yàlla dañ may jàppale di nuyu tamit aussi su may xarit yi nga xamante ñoom laa àndal ci combat bi. Mhm. Euh, aw ma aw ma chance tamit di leen tudd si télé wala quelque soit. mais di ci nuyu tamit sama Moussa Sy mi nga xamante ni mooy borom roulé. Mm-hmm. Moussa yi sama xarit la sama doomu ndey la vraiment ku ko ku ma gis da nga koy gis ci wet ba ñooy ànd fépp muy sonn ci man tamit di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu tamit euh, waa buntu Pikine Kalso ba bàyyi bàyyi fàttewuma leen ak euh, euh, responsable politique yi nga xamante ni jàppale nañ ma. Mm-hmm. ku ci mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Thiam moom mooy borom Azurut. ah vraiment moom it jàpp na ci combat bi waaw ah, di nuyu aussi tamit ak euh, monsieur le maire Amadou Diarra borom Pikine Nord Amadou Diarra aussi tamit yàlla na ko yàlla may euh, maire bi muy xëccoo pikin noor mm-hmm. ak euh, Nogay Seck Nogay Seck responsable politique PDS moom aussi tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko li muy xëccoo biir pikin moom moom koy Seck mm-hmm. ak kii ki nga xamante ne mooy Isaaxa Diop moom tamit moo nekk Pikine Est ah waaw Pikine moo fa ne di ko ñaala moom it maire bi yàlla xam nga teg ko ci loxoom waaw ah, moom moom miin na ndam moom. voilà mi ngi noonu ak euh, Mor Cissé Mor dafa feebaroon mais yàlla defal na ko tan macha allah di ko ñaala yàlla gën koo may wér. Mm-hmm. li mu tawat tawat yëpp jàpp na ci combat bi Mor Cissé ak soxnaam Yacine di la ñaanal yàlla gën leen boole xam nga seen njaboot yi dem ba fekkee seen njariñ ak ñoom petit xam nga mbay Sakho. ñëwaat ñoom Pambacc maa ngi leen di sant ñoom Ibou Fall ah ñoom Gakou Ibou Ndiaye ah ak gars yi nga xamante ni dañuy sonn ci Balla Alaaji Padaan ah fàttewuma kenn kenn kenn yaakaar naa hmm, maa ngi bëggee ñëpp ñëpp ñëpp vraiment Ouzin yow di kontaan ci yow lu nuyu tamit Bas borom wasaare ah moom it vraiment ni ku baax waaw vraiment jàpp na ci Mbay Babacar ndeysaan borom Leewtoo ah waaw moom it maa ngi koy sant waaw di wax jox gars yi rendez rek Euh, le 31 décembre incha allah fee ci Diourbel. Mhm. mbokk yi gis ngeen di jox di jox rendez-vous le 31 décembre fee ci Diourbel di leen jox dig daje ak beneen yoon di kontaan ci moom bu baax a baax di ko wax na nag mbër moom na entraîné rek. Mhm. te xam ne làmb nga ci kanamam. mu gën a góorgóorlu te nag euh, li ko li ko li ko Yékini daan waxee rek mbër su bëggee nekk mbër lépp lu koy def mbër moo koy def. Mhm. waaye saa bu demee ba nekk mbër lépp lu koy yàqal rek ci moom lay jógee. di ko ñaanal nag loolu yàlla na ko bañ a dal di leen jox Wassare Lamb ak beneen yoon maa ngi nuyu nag Fatima bu baax a baax tey mooy sama mosee émission bi daal.